musicien yi da ngeen mëna xajam man mako wax ñu xalé yu ndaw yi magi mom, duma wassi gay parce que xam nga gay suma kilifa lay way xalé yi da ngeen mëna xajam xajaam ta artiste yi I don't deal with them one part rek laa dee diilal <laughs> te yàlla ma tek na tu one part so waxee bi ne bëgg kenn wax ak mom am nga dara si lo ne ba ma ngi rek ngi ci project bi am nga dara sa nice thank you sa jabar wax na la loolu Hmm. Nyata jabar nga Ben? benn gaa ñu ne góor bu baax foo ah ñu ne góor yapat lu yomb la nga réew léegi léegi léegi kon moom góor yapat la déedéet moom benn la léegi yu am benn ñooy góor jàmbaar jàmbaar kon mënu leen ciis si naa ne si loolu ne man dara ñu bi ban projet WOWAC project West Africa eh, Washington West Africa Center project mm. on uh, domestic violence. So lolo project i pause bala. Pause bala government. Ina eh, ko mom. Government ala. Ina ko Aman mo tuma government ala sama ni arama baro la buga mo employ mo may mo to. Arama baro ona la beso na. Dega ma mo degut mo wax bu ba. Ma yok ba. So sina de yang sidde ka before a while legi. Sima de eh, semester nga nekatu lo semester. Musuma nekatu semester. Huh?

loxo bi la jël dugal ko si booy gis nga gis nga déedéet nekku yi fi téléphone bi gis nga ba pare mu def mu def lii waaw caabi sama si moo nekk ni gis nga caabi sama saa mel nii gis nga gis nga ah xoola ba pare xoola jaaru bi xoola jaaru bi ah sinaate am nga time Gambie xaay dëkk bi xaay ñoom oustaz Senghor waaw you see sinaate loolu daan def Gambie xaay dégg naa da nga tëj foofu hmm. mooy di bes mooy di bes mooy ban jamono mooy time moo nekkoon Gambie xaay mooy ban time between 2024 2026 that was time seen time naan ci yéen a ne waa ma la gis rek sama si yow wax ma noonu naan ci wala bindal leeta bindal leeta noonu ci nag xam nga man dama ñëw rek gam sales reconciliation rek ma dee topp ah wax ma dégg a waxal bi dégg wax ma noonu noonu dina daan ooyee ah temps boobu la ma dee ooyee friki ko ñu bari loolu leen la xamee kilifa ah, la soo léegi friki loo so léegi mag nga kon léegi ba si ki tey start leen di ko ooyee alaaji sinaate gis nga mag danga koo jox ceeb tey dama yor oncle sinaate oncle dara hmm. euh, tey yaa ngi ñëw si place am you know euh, nga gisee studio bi because ah, top studio def na dee monsieur Allé boobu dafa bëgg lu baax rek hmm. te man noonu laa ko mos a xamee very professional. Mm-hmm. Mm-hmm. whatever he's doing so. mu ñëw gis ni studio bi bi mu amee projet bi waxtaan nañ ci expliqué la ma ne lii laa nekk ñëw naa fi even before muy. tabax sax waaw mm-hmm. parce que maanaam moom seq nañ loolu. so mu nekkee ci liggéey bi indi bagages yi def na lii ko gis xam na ne. so dafa war a fay parce que lii maquette na ku bëgg lu baax la <laughs> waaw te te def na lii bagages yi gis fii yëpp. gis gis really waaw update la loo xamante ne ñi nga xam ne ay projet yo xamante ni nii standard la fu ko fu ko fa dem so def naa loolu rek la ñu soxla parce que tamit musique bi liko ko ci kanam tamit bagage bi ci le mhm. knowledge bi ci la it's a package mhm. du artiste bi da fay a way rek bu baax mhm. so il faut que artiste bi am composer bu taxaw am arranger bu taxaw am all stuff ak bagage yi tamit yëpp dafa nekk loo xam ne il faut que mu nekk pour que ñu mën a am loo xam ne nii end product la boo xam ne nii so dafay standard wax naa leen ko Gambian Talents ak man Fatou wax naa leen ko janax day bari pax démb semestre yi di ma ko laajte ana janax day bari pax 2023 leen wax maa ngi ñëw ak beneen duma fi wax ay pax duma fi wax ay janax janax suul naa ko muus daaxa naa ko maa ñëw ak suma ay kaba dagit marinier yàlla lañ ko yóbbu leen baatu kër maam Sinaade Sinaade studio bi waxal gars man maa ko defar. ah studio waaw waaw studio yaa ko defar waaw. Sinaade lan moo la ñaax si lii. Ah, dafa fekk rek. Euh, it's part of my contribution towards the music industry. Yaga na mom, neka nande moy biggest hit, Live It Up, number compose. So yeah, and then from me from being from a singer, getting into production, yeah. I think it's uh, step one step ahead right there. Mm -hmm. So my whole them na jang and and that's my experience exposed this. so my whole like an invest back home. So here we are more or less more or less working on bring in the young talents You might nekk follow up on Facebook Instagram and Twitter dem gis nañ project bi bring in young talents More than you to the Gambian Talents TV talents si in neen ndax gars yi dañ leen wane expose ndax wane nañ leen ndax talents si tamit sinaa danañ Some music industry be. lu fi nekk amul fenn musiciens compose ay xaw ma lyrics lañ ko I song uh, ak anything si ay xuloo la See I ay defante I saagante si digg ay stage eh, Yo, seen temps da ngeen daan def yooyu. non time suñu competition was healthy New suñu temps boobu maanaam Jalex la woon. wala mm-hmm. music You are eh, yow Jalex yow. they compete musically. <laughs> Uh-huh. not verbally. Mm-hmm. Understand? saa bi ñëw stage musuma des musuma toog wax affaire am. Mm-hmm. man dem naa ba ma release dem naa ba produce sama album 2009. moo ko moo production America ñoo war ko release fekk moom mu ngi. release song am bi Akutu mhm. moo ko produce mhm. Mhm. ñu def livito boobu ah, so fu mu teg fu mu teg Akutu fa livito so loolu mooy healthy competition da nga naan musically but not calling names and all so artiste ñoom seen boppa ñoo like bii koon sax ñu war a a juboo nga gis ne suñu amee force they go to the government they go to big institution dañoo am more sponsors waaye ñoom seen leen suñu nekk di xeexante nii. Mm-hmm. it's not happening. te amaguñ dara. dara leen fi The dem na ngeen toog tojabu leen dara seen ay nen tojut yéen lan ngeen am pompiteer te pompiteer gaaw ko toj. yow dara fu mu nekk nii dara dinaa bàyyi Sinadé parce que mana amoon na war a am face à face Sinadé maa ñeme nga ma. non boobu moom dañoo am naa is comme ni ma la ko waxee du nekk de bu ko wax bu sama so Modou Modou Avenue la ko jox waaye Sinadé su ma jógee fii damaa bëgg nga may ma amma interview na bina semester uba mo me ma ni cheni or kena mo me ma 1 ah. million no semester mo na mo wa ma explain la kena mo me ma 1 million kena mo me ma moto kena mo me ma ah, a ada ma bara sama ko interview mo mo buku ma dara ada ma bara lu mo to okay ha ma promise wa ma la dede wana ngara mo buka slim so Modou Modou Avenue Sinaada yaa ko créé léegi bés ki tey start am Modou Modou yeah su fekkee Modou Modou itam ñu am leen digal la ah, semestre rek yéen la what is it so tàggatoo waxal artiste sa place bi ñëw so uh, we start working already so bokk na si projet bi suñ ko starté rek yëpp dinañ ko gis all these start na di di def audition of few artists you pass through so but when you are ready probably before the end of December advertisement dina génn incha allah. nga indi advertisement ma advertise la nga fay ma xaalis na ya, man ko fayee duma dee man ba la war si yaaxul dara. ah man man xaw ma. man nga ñun halale won time boobu so ñun mo si ah, yëf ay ah, naka la gam sense di consulé waaye si naa de balaa nga tàggatoo leen laa bëgg ñu waxtane hanga man suma bad, bi you know when it comes to live videos like you, noonu sumay war a dee nii waaye dama bëgg a wëy ba dégg naa suma baat bi ñu ne fa naxari si wëy da ngeen ko dee mën a ci waaw bu ne ma def effet waaye dafa fekk da ngaa wëy bu baax de wëy lu bon moom du dem naa de li ma ah boobu ne ko am na lu ne wala ponc dégg dégg xam nga lu maa def xam nga lu ne wa lawyer Darboe and Adama Barrow dellu leen baak noonu laa naka la di nga sëy bokka. non si koy waaye dina la war a jàpp. lu tax. ah te nga ne Adama dafa ñëw milieu rajo moom milieu woon tamit su ma wooyee kay moom damaa weel damaa weel nit ñi la bu ah. so looy daabo nekkul président. de waaw waaye naka la kii doomam la. so su ma bëggee gars yi jubóo kilifa ñoo so a war a jubóo so soo gisee dëkk bi divide nii kilifa ñoo war a njëkk a jubóo you know politique politique su jeexee moom we should move on waaye kilifa suñ jubóo moo tax seen moodu moodu yaa ngi xeex you know so su gisee unity election bi passé na kilifa jubóo ni now we are all working towards the development of the country problème dafa jeex waaye fekkee politique dafa passé ba léegi nit ñaa ngi commencé di wax a wax yéene so so gisee fans yang yes, disante di wax because man gain one is my fans a buy guy. Mm -hmm. Then concentrate, focus because Gambia is for all of us. So no like dina ba inshallah dina ba inshallah dina ba kon nag semester avenue no Modou Modou avenue I change it again ah with tra and Sinade <laughs> so Sinade that, I'm dama war a dem uh, bye bye, Gambia. My man has not the I'm back. Bye bye. <laughs>